qu'est-ce que lan nga découvrir chez lui mais ce que j'ai découvert chez lui c'est deux choses et je pense que ce qui m'a le plus étonné c'est la modestie de la personne parce que bi ñu waree gisee euh, dama ko man maa ñëw sa kër mu moom ni ñu ko yaree bu soxlaa nit moom mooy déplacé. c'est ce qu'il vous a dit. et c'est lui qui s'est déplacé qui est venu chez mais c'est moi qui ai demandé à le rencontrer je pense que loolu lu may wane mooy la modestie et la grandeur d'une personne loolu war na tax defe naa ñu am njort bu rafet parce que nit bu woyofee rek defe naa euh, dina am yër yërmande te nit bu amee mën de lépp lu nga xam ne daf ko bëgg a teg pour liggéey réewam defe naa dina ko teg ci yoon. su weesoo loolu leneen lan nga découvrir ci moom certainement bi ngeen waxee ba pare. mais la un homme un homme engagé est surtout très conscient d'une chose de ses responsabilités mm-hmm. parce que ci waxtaan bi li ma ci comprendre mooy xam na ne yaakaar bi mag na trop yaakaaru xale yi mag na trop loolu defe naa lu am solo la gis nga nit bu yaakaar amee nga conscient que yaakaar bi am na solo trop ci yow euh, defe naa aussi dina tax yàlla mën la dimbali ci lu bëri defe naa ñaari points yooyu daal moo nekk des points très importants ñu bokk gis-gis nag man ak moom ci ci lu bëri ci ñetti yëf ñoo bokk gis-gis benn mooy ci affaire ndaw yi xale yi ñoo war a nekk defe naa priorité suñu réew mm-hmm. xale yi ñoo nekk priorité suñu réew mooy que euh, xale bu jàng ba pare war nañu def kéttalaay kattan pour mu mën a am ci li mu téye waxuma li mu téye muy euh, des emplois que j'appelle moins précaires beneen bi mooy li wax la gestion transparente daf ko gëm ñetteel bi bi am solo mooy nit boo ko dénkee liggéeyu réew daf la war a wóor ne am na kàttan bi am na mën-mën bi ñett yooyu lañu déggoo d'accord bi ci mujjee xëy na ma wax ci. Mhm. loolu man dama ko mës a gëm. mooy euh, suñu dëkk yi dafa ndóol moyens yi amul soxla yu bëri dañu war a def lépp ba nga xamee ne képp koo xamee ne dénk nañ la benn post état bi dafa war a assurer que ne yow mii kat am nga kattan bi am nga pas-pas bi ça veut dire que dañu war a bàyyi nit ñu teg la fenn. ndax politique voilà. d'accord mhm. alors à la place qu'il